parce que Sénégal yi liggéey la ñuy xaar ci ñun ay contentieux période contentieuse yooyu jarul muy am parce que soxul parce que les élections se sont passées d'une manière transparente voilà man gis ngeen ma Saint-Louis j'ai perdu et j'ai reconnu avoir perdu demain damay tourner ci vers la vers la reconquête de Saint-Louis loolu moo am solo suñ borom mooy def loolu da may ndem tey bu ëllëgee wala mu def safaan bi mais da nga yàlla nangu loolu moo gën opposition li jéem a taxaw di wax loo xam ni vraiment jëmul kër te day delloo Sénégal ginnaaw et c'est ça qui est important et j'invite vraiment les Sénégalais on tourne la page des élections ñu liggéey parce que liggéey moo jot liggéey moo fa sës pour Sénégal donc moom solo le président Sall a gagné l'opposition donc vraiment ay désillusion la am am yàlla wala liggéey loolu moo des du leneen. est-ce que contexte mën tam parce que ak opposition bi gis nañ ni ñoom ah, ci jour bi commencé woon nañoo génn ñoo gagné ak par rapport li am. nga ñëw xam nañ mënuñ gagné xam mënoo gagné mu ne dama gagné te amoo des résultats définitifs aujourd'hui les commissions de recensement génn nañ seen non seulement seen résultat mais la cour d'appel génn les résultats provisoires et des résultats transparents connus par tous parce que les PV existent donc dem nañ élection yàlla ma ne leen ay sièges réunis la l' intercoalition Yewwi Wallu am nañu quatre-vingts sièges nañ sant suñu borom ñun la coalition Benno Bokk Yaakaar am nañ quatre-vingt-deux sièges ñoo leen raw mais sant suñu borom loolu lan moo des léegi dara desatul liggéey moo des Sénégal yi liggéey lañu tal moo ne politique dul jeex vraiment nañu dem liggéey lu ñu yaakaaroon daaneel président Macky Sall mënuñu ko daaneel parce que aujourd'hui le président mën a il bu amee plus de 46 pour cent de suffrage te moom caution bokku ci maanaam tey bu demoon ay élection présidentielle da koy gagné dès le premier tour loolu mooy génn lu leneen donc dañ gëm yàlla dem liggéey mënuñu yëgal Sénégal yi mënuñ taal Sénégal mënuñ def dara Sénégal nañ leen liggéey parce que les Sénégalais ci liggéey la ñu xaar yàlla def na lu muy def nëkk ñëpp nangu et on tourne la page et travaille parce que ce qui nous attend avec le contexte difficile mondial Sénégal dafa war a relever wu te pour mu relever wu nag il faut ñëpp ànd benn moi je lance l'opposition nañu vraiment nekk une opposition républicaine suñ ñëw liggéey président nañu liggéey président ni ñu ah, président kat ñoo bokk dëgg kaa ñu liggéey waaye bu di xëpp suuf ci loo xam ne ñoom seen kaw di xëpp seen normal man gagné naa sept élections buñ ma gagné bii dama ci sant suñ danaa xool lu tax ñu gagné ma ma jógaat loolu moom solo comme am na ñu gagné ñu félicité leen àdduna la da ngay gagné tey bu ëllëgee doo gagné tu xaw ma lu xew dinaa xool méttiwu ma am na c'est des signaux forts yi nga xam président c'est les populations ñoo koy ñoo koy émettre ñu analyser ko en amul leneen c'est pas la fin du monde politique bi fi dañ koy bàyyi on va pas mourir avec la politique fa lañ koy bàyyi donc da ngay def lu askan bi mu ngi xaar ci bu fekkee askan bi tey ah, li nga def baaxul da ngay delluwaat ci ñoom lu tax lu tax ni lii baaxul la ngeen xaar ci man ak la mën indi ci loolu loolu moo am solo c'est il faut démocrate dans la vie da ngay nangu ndogalu yàlla boo amee da nga koy nangu nga avance lu leneen. la nga opposition bi yan kàddu nga leen jël. nañu nañu dal moomuñu sa opposition moomul senegal am nañ ci wàllu comme ni ci ñëpp amee wàll mënuñu di bugg jël nit ñi bugg leen yóbbu toujours ci ay fitna baaxul parce que ku yee fitna sa kaw lay dal. donc nañu dem liggéey parce que je pense lu le pomme de l'opposition mooy ñëpp ay chômeur lañu da ci bëri ay chômeur donc voilà moo tax ñu am jot pour def yenn mais nañ liggéey quoi liggéey moo de Sénégal lu ñuy xar ci ñoom liggéey la liggéey nañu tellu liggéey liggéey moo fi des du leneen Sénégal liggéey la ñuy xar ci ñun nañu liggéey voilà amul jëm fitna baaxul te ku yee fitna même intercoalition bi loolu la ils ont quatre-vingts sièges ah donc euh, cinquante six plus xamoo vingt quatre voilà ils ont 80 sièges benn raw na leen mais nañ ko nangu nangu ndogal yàlla dem liggéey amul leneen loolu moo am solo man gisuma leneen liggéey donc c'est le travail xale yaa ngi xaar liggéey euh, bay mbaa ngi fii nawet baa ngi fii Sénégal dafa war a développé am nañ des ressources am nañ lépp nañ dem liggéey suñu bëggee nekk dañu bëgg ànd ak président nañ ñëw ne ah dama bëgg ànd ak président bokk ci liggéey mais bëgg politique du 24 heures 24 365 305 on doit travailler c'est le travail que nous attend vraiment on n'a plus de temps à perdre et le président est là pour travailler il va travailler kenn mënu ko tere liggéey bu neexee yàlla